tay li ñu fi dajalé moy dañuy delluwaat défat ay action action yo xamné yag nañ ko def bé yalla dogal si jamono yi président de la république euh, Macky Sall am lo xamné santané nak ci weer wu jot fekk na nak ngapparu nek ci ndax bob ak légui ñaar fukki groupement ak juróom ñent ñoo fi nekk di yëngatu ci loolu chaque jeudi plus le quotidien bi nga xamné mom lañuy def seen kër je pense que depuis 1996 ñu ngi ci loolu journée utile jeunesse mobilisée tay loolu mo feddali loolu amna ño xamné ñu ngi ci action bi 96 euh, fekkul ñu juddu té tay juddu nañu ba bok ci action 2020 bi donc loolu bokk na ci li nga xamné moy euh, ndaje tay bi li ko gëna animer nak moy groupe xam sa wareef ñoñu di benn groupe bo xamné ci Ngaparou lañ nek man en tant que maire ñom ñu dénk ma ak magi Ngaparou euh, ma bok ci membre fondateur yi le euh, président yi ak euh, secrétaire généraux yi Moussa Gueye Aladji Faye Lassana ñom ñep ñu bolo ne dañu imam ratib délégué de quartier chef religieux coutumier ak ñep euh, fi ñu ñëw di wax ñu ngi nga le icône mu suma un communicateur traditionnel qui peut parler de Ngaparou des années 1800 à 2020 Mhm. moom moo nekk nii suma wet donc ñëpp génne ñu jàpp pour loo xam ne nag du doon pour tey day continuer ndax 96 ba ñu ba léegi ñu ngi si sant leen yéen ñi nga xam ne nag yéen nu defal xéewal gi ba lii nuy def mu mën a génne lu tax mu mën a génne mooy peut-être nos leurs di nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi am na ñoo xam ne ñëw nañ tey fekke ko ku mel ni Adrien Ñàkka euh, Dia jóge Milouze

Euh, dañu def set setal dinañu def set setal bu ñu paree daañu waxtaan ndax tey li ñu aadoo dañu am ay xew-xew yu fi am lu mel ni tour de famille boo xam ne annuellement day am si kër te kër gu mu am këru ñëpp la am nañu fi ay mariage donc ci ngoon gi si loolu la ñuy def bu ñu demee ba benn heure nag ñu dajalewaat nit ñi euh, jox leen ñu déjeuner waxtaan imaam dellu siwaat ñu julli tisbar ñaan continuer nak dem ci mariage yi ndax mariage yi ñaar la té mariage bu ci nek kër yi nga pour yépp ñoko bok tour de famille bi kër yi ñëpp moko bok kon ñetti cérémonie bu amé ci ngapourou plus benn déchet bo xamné mo fi nek au passage muy lamine cissé yalla jël ke bi téréwul wakërem ak ñëpp gënë na ñu ngi balé tay bo démé kër bi nga xamné fa la dëj bi nek soxé ak ñëpp ñu ngi balé donc kon leneen lu fi mën a jib lu dul delloo lépp si yàlla rek euh, rek le cunuk set ak cunuk setal mu gëm ci li nga xam ne mooy yokk ngàpparu boo ko seetee sax mën naa wax ne amul opposition parce que nous avons un tronc commun qui est le Ngaparou bu élection bi xësee jeex jeex na hmm. bu ñu duggee fii si salle de délibération bi jeex na hmm. chacun a son mot à dire et on le lit on les écoute mais wax naa la 1996 à nos jours ñu ngi bale amul dépôt sauvage bu njëkk tefes bi fi lañ daan tour, mais débarquement bi moo fi nekk les produits halieutiques l'industrie de toutes les maisons de Ngaparou c'est la pêche kon boo demee day mel ni fii sën mosu fee am 96 ak à nos jours boo demee da nga naan sën mosuta am Ngaparou hmm. donc mbalit yi ñuy jël am na fu koy yóbbu mairie am na ñaari oto am na benn benn tasseur am benn tracteur pelle depuis boobu ba léegi chaque année dañuy cuver benn pax bu mag boo xam ne fa lañ koy def ànd ak éboueurs yi di ko fa denc di ko toppatoo ni ñu ko war a mën a toppatooyee tey on a mobilisé au moins plus de six voitures ak euh, lu mat euh, quatre quatre euh, engins lourds yoo xam ne ñooy tas yenn places yi defar ko nettoyer ko boo demee tey du côté du CM lycée oto yaa nga fa partout dans les quartiers de Ngaparou day am suivi parce que ñun dañu réglementé fii saret du fi yàpp mbalit ku am sa mbalit da ngay woote à la mairie ñu ñëw jël ko. soo amee problème d'urgence nga woote am am nañ ci projet d'ailleurs bug bi mu ngi sama sama sama sama oto daañu si waxtaan dans le cas avenir am na lu nuy préparé foo xam ne daañ ko fa yóbbu daañ fa def ay tri daañ fa def ak yëpp bi conseil municipal bi la ñu war a dajale semaine bi nu ngi doon di wër site bi ñu koy def site bi au minimum dina mat 300 euh, mètres carrés minimum lool nag foog nga dajale conseil municipal bi bo gisee sit lah. lah, ba pare waxtaan seeg ñoom parce que fa nga def suuf la te wàllum suuf la te ñun ñan nañ ko dénk bu boobaa nag dañuy xool fi koy def ndax si yàkkamti bu paree du am effet secondaire ngay réccu ndax pourquoi ma def ko fi waruma ko fi wana def moo tax si loolu lañ nekk boo bëggoon léegi ma ubbi oto bi dans suma 2015 ak léegi intercommunalité bi ñu ngi si somon ngaporu sali malikunda mbour je pense que lancement bi fii lañ ko defee woon à ngaporu ça devait se faire à mbour enda ñëwoon na le préfet de Mbour à l'époque boobu moom moo fi nekk euh, mooy ki nga xam ne moom la préfet Ndaw remplacé fii lañ defee woon lancement bi ak le maire Fallou Sylla à tous les autres no xam nga fi mu toll nii ñëpp délibéré nañ kon bu ñëpp délibéré am na ku nekk délibéré nga sa dëkk am na fu ñu choisiroon diggante Malicounda ak euh, fële euh, beneen dëkk bi Ndiaga Ñaaw ba xam ndax dinañ fa am site boo xam ne ñoom ñi duggul woon si intercommunalité bi sax dinañ si dugg bu ko defee mu je pense que bo interpeller le maire de Mbour dina ci mëna wax Maguette Sen dina ci mëna wax le maire de Sali dina ci mëna wax parce que ñu ngi siy di waxtaan tout récemment rek amna ben voyage bu amone, un de nos femmes bokkoon na ci ñi démon voyager dans le cadre de l'intercommunalité ak ENDA Tay jii bi nga xamné suñu président commission environnement su fi nekkoon mom dina gëna mëna wax ci wax ji

ci membre fondateur yi la bok ñu xamné dañu am wal ci dëkk bi ci wara a defar dëkk bi defar dëkk bi nak dafa am fu muy tambalé ndax nit balaa tal def dara da fay set d'abord setal environnement yam donc mo taxone ñun ñu am initiative bi tay ji né dañuy o dëkk bi yépp euh conjuguer suñuy effort yépp ñu ñëw and and ak maire o ñëpp ñu and génne pour faire dëkk bi def set setal bi te jàpp il est presque midi passé ou 13 h jàpp c'est déjà une réussite parce que def nañ le tour de tous les quartiers euh, on est presque à 90 de ramassage dans daanaka quartier yëpp set nañu euh, kon dañu à la bu baax nekkuma la personne la mieux indiquée pour voir wax parce que sama président mu ngi nii taxaw ci sama tout simplement rek man dama nekkon ku done coordonner journée bi mo waral xeyna na ma man see wax kon li am mooy duma def répétition ci li maire wax ba paré ndax ni mu ko waxee depuis 96 alors que Ngaparou mu ngi bokone encore en communauté rurale nekkaguloon commune ñun ñu ngi nekkon ci li toutes les semaines le jeudi et le vendredi jigen ñu ñu ngi nekk ci li kon ñun dañ ñëw rek booster seen activité bobu jappalé leen yokk leen ay moyens yokk leen doole sant leen ngir ñu gëna sawar

dañuy wax alhamdulillah rabbil alamin lu ñuy laaj toujours dañ ñu ko massa jox ndax suñu goor ñi dañ ñu massa jappalé nek suñu gannaaw lu ñu jappalé ñu bëgg développement ngaparu développement jigéen ñi bëgg aussi ñu ñuy dimbali def ñu ngi def ay GIE def ay association bëgg nañu appui ñu jappalé jigéen ñi ñu gëna mëna def ay des activités génératrices de revenus dimbali suñu jëkëri dimbali suñu njaboot wa ku nek xamna ne doom adam mom moxtilim ñoo ànd parce que nit dafay produire ay déchets bu ko defee moo tax ñu def set setal pour que suñu dëkk bi set Sénégal set répondre norme mi nga xam ne moom la président wax muy cleaning day bi nga wax ne bi ñu wax ne pour le Sénégal yëpp la ñun ñu commencé ko rek nga paru fas yéene ko def nag pour une continuité loolu la ñu bëgg commencé nañ ko tey bëgg ko àggali nag incha allah bëgg ko def chaque mois ñu def ko gis nga jigéen ñi ma àndal ñun ñoo bokk association bi di si liggéey en partenariat avec mairie Ngaparou monsieur le maire bokk su ñun mu nekk liggéey boo xam ne commencé nañ ko fas yéene ko àggali di si laaj ay partenaires ñëpp jàpp si nag waa dëkk bi yëpp génne nañ jàpp lépp loo xamante ne dafay jàppale jigéen rek soxla nañ ko bale per financement ñu gën a développer suñu activités yi parce que jigéen ñëpp dañuy liggéey kenn ku nekk am nga si looy yëngatu